mbokki jullit yi gannaaw bu nu sante sunu boroom subhanahu wa taala julli ci yonentam ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jëggal mbokk yi yàlla rek moo sañ a digle ba noppi tegab yara fa fawet ga doonte am nañu sañ a digle yàllaa ko maye ba noppi fa bopp yar teg ca wet ga waaye wuuteeg suñu borom gi day feeñaat foofu ndax yàlla moom sañ gim sañ a digle fa bopp yar teg fa wet ga daa fabaat ak fayit teg ca wet ga ngir ku jëf lu wuuteeg safaanu lam dige maanaam bu diglee ne nañ def ma ngaa ko pay waaye su ne bu kenn defit ma ngaa ab yar bu tege ci wet ga li tax mu sañ ko nag moom daaw mu ni su ko lim waaye wane ne ay firnde yuy wane ne moom daal moo ko sañ ndax moom rek moo mën a taxaw ne moo bind kenn du ko ñaareel kenn du ko feelu moom rek moo mën a taxaw ne moo tax nit ñi di lekk di naan moom rek moo mën a taxaw ne lu way am ci tan ci yaram ci yaramam bu tàlleb tànk mu tàlli bu bankee mu bank moom rek moom moo sañ a taxaw ne mooma waaye moom rek it moo sañ a taxaw ne mooy rey te dara du ko ci fekk ba Seydina Ibrahima di jàngale ca njàngale mu rëy ma ñu ne ko ana abudu asnaaman daf na leen ne maada taabudun qaalu naabudu asnaaman fa nazallu laha aakifin qaala hal yasmaunakum id tudcaun aw yanfaukum aw yadurun qaalu bal wajadna abaana laha aabidin aw kadalika yafaaloon ba mu leen fekkee ñuy tuñ tuñi sëgg fu dara néewul weddi le wolof di wax naan mag du sëgg fu dara nekkul dañoo sëggoon fu dara néewul mu ne leen lii lu mu ñu ne ko yàlla mu ne lii kay du yàlla ñu ne ko ba nga tàyyi ko mënoonu koo tee jaam mu ne ma laaj leen ñu ne ko laajal mu ne ndax su ñu leen wooyee daañu dégg ah déedéet nag waaw su nga nekkee ci tolof tolof su ngeen leen wooyee daañu leen walloom déedéet buñ noppee it tontu la mooy déedéet rek lu ngeen sëgg fu dara nekkut nag ñu ne ah ñun de lañ ko fekke woon suñu suñuy maam ak maamaat sëgg ci rek mu ne leen kaay leen ma wan leen yàlla mooy kan. yàlla alladi xalaqani man ñi di wax yéen mooma bind bind leen fa huwa yahdin walladi huwa yutimuni wa yasqiin wa ida maradtu fa huwa yashfiin walladi yumituni thumma yuxyi kon bokk yàlla wane na ay preuve yii wane ne moom rek moo sañ a digle teg ca ab yar ndax yii mu tudd ñu gis ko yi mu tudd te gisaguñ ko moo ko raw dañ ca àggagul rek looloo tax nag kenn ku nekk war a xam li ko indi fii te bañ a topp rek xew-xew jamono rek di ca wax ak waxaat di ca yëngu ba fàtte li ko fi indi yàlla nañu ci yàlla musal am na nag mag mu ne woon Tuubaa ne allazi joo gis ci alquran huwa allazi la ca tege nit mënu ko huwa alladi xalaqani fa huwa yahdini alladi huwa yutimuni wa yasqin wa ida maradtu fa huwa alladi alladi huwa ida maradtu fa huwa yashfi alladi huwa yumituni summa yuxyin kon boog teeloon naa wax ak nun bu yàgg ne yàlla bim leen ji laata bind moo bindoon fu dara newul daa bind dara bañ a am ba noppi door a bind am su leen indee nag fi nga xam ne dara nekk fu woon ngeen war dafaa nekk dafa am lu leen fa liggéey looloo xam ne ëllëg si bi dafa leen koy laaj muy ñu jaamu ko fi wéetal ko fi yem ci moom kepp bokk yi li li ma ne yàlla dafa wane ay preuve am yuy wane ne moom rek a sañ ci digle ba noppi teg sab yar ca wet ga gis nga ngelaw lii nga xam ne moom la ñuy nooy ku nekk fu mu amul bu amee génn wér di mën na ko indil jafe-jafe ci waji bu nekkoon ci yoxoy nit ñi benn benn yi ne ci yoxoy nit ñi képp fi mu ne ku ci siq ak ñoom la ngeen waxante woon soo ca manqué benn mu daal la koy wan ne la manqué na ko day day daal dagg lam la war a lam la war a dagg sax sa nga xam ko waaye ku yoroon taw bi itam fu ko neex dong lay taw tudd naa lekk léegi lekk moom bu taw bu ndox ñorul nit du lekk waaye wane ne preuve am ci ne moom képp moo mën a taw da nga gis ku yor toolam nag jël ci ndoxam mi ci ay pexeem ci ndoxam yàlla mi ci ay pexeem moom moom nit ñu naan gis ngeen ko day bay noor di bay nawet waaye sotti ndox ma dong la ca am ji yàlla mooy ñorom laajoon na ko ci alxuraan laaj boo xam ne ba mu ko laajeeg léegi amul kenn ku taxaw weddi ko a antum tazra'unahu am nahnu am nahnu zaari'un a antum taxluquunahu am nahnu alxaaliquun kon boog ab jullit war naa xam lu ko fi andi te bañ a topp xew-xewu jamono ba mu dox digganteem ak li ko fi andi woon bokk yi li ñu fi andi woon mooy jaamu fi yàlla wéetal fi yàlla noonu nag lañ fiy nekkale yàlla moo tax amul sikk sàkk ci ne jullit boo laaj bu fekkee ab xolam ngay dund mu téye diineem soo ko laajee loo gën a bëgg ngërëmul yàlla la lay wax su fekkee ku xam li muy wax la ngërëmul yàlla nag ku koy wut ku ne xam na ne wan na gannaaw fu yàlla gërëmut moo tax bi alquran leeralee lu tax mu andi nu fi alladi xalaqa almawta walxayaata li yabluwakum ayukum axsanu amala inna jacalna ma ala al ardi zinatan laha linabluwahum ayuhum axsanu amala wa inna la jaaciluuna ma alayha saidan juruza keroo la ba mu ko waxee rek la ñi seeni xol di dund ñépp fëx na bërit daal di fax fu ñu ko dégg wutali ko fu ñu dégg na ngërëmul yàlla nga fa ñu wutali loolu nag ku mu tax a fëx lu mu gën a daw ñee gën a sori fa yàlla gërëmut mbokk yi mbokk ngi nii moo xam ne am na pas-pas bu dëgër ci gëm yàlla waaye sëriñ bi daa wax ak moom bés ndax day def buñ ko ne buñ ne xayya ala salaat xayya ala faa rek mu fëx dem jàpp ñëw julli waaye fa lay yam bu ñu ne koor ñëw na mu woor yam ca nga xam ne daal lu ci nekk lañ ko ca teg dana ko tegoo def ko yam ca sëriñ bi ne ko nag ku bëgg ngërëmul yàlla da nga weesu foofu ndax balaa kenn na bay bay ji moo koy jiitu ji taw loo koy jiitu yooyu yëpp nag daa am lu koy jiitu mooy ruuj balaa kenn jëm ci ay toolam di ca ji doonte ndox laal na suuf na ruuj ruuj alxiraasatu qabla zariaati dal ko ne ni nit di waajale ab tukki kuy tukki ku nekk bu ko tukki ba ñoree dana ko waajal ci ab yóbbal wa bi tazawudi qabla safar ñun nag dañoo defee ne bu nee ay tool mi ngi ci jublu rek tool yi nu xam ku nekk dem ci àll ŋàlli ba doyal wut la muy àndal ndekete yoo mbay moomu di tam am fu mu tàmbalee am fu mu yam di jeex ak nangu ko tëli taxu koy wax ba muy wax kooku daf ko ne li ngay def baax na lool waaye soo bëggee ngërëmu yàlla nag da ngay ruuj bala ngaa bay bala ngaa ji ba muy sax ngay bay mu ne ko nu may defee mu ne ko fu la tusbaar fekkati boo xamee ne waxtu jot na ba nga jàpp ba noppi digal naa la digal ko képp koo xam ne bataaxal bi agsi na ci moom du digalu farata ji waxtu yor nag waaye daf koy xemem loo rek yoon wi gën a gaaw ci am ngërëmul yàlla mooy ruuj bala ngaa bay na nga julli ñeenti rakkaa waxtu wi jot nga julli ko tegaat ca ñeent bu dee tisbaar bu dee takkusaan noona julli ñeent balaa takkusaan a jot boo jullee takkusaan nag bu dee ci daaray réew mi ba ba jant bi so mën ngaa yor sa jikk bi alquran di jàng wala ngay zikr wala nga dem ci fi ñuy waxtaanee lu baax rek di déglu bu timis jotee nga jàpp ba set fukk lu waxtu boo jullee timis ba noppi soo mënee ñaar baax na soo mënee ñeent baax na gannaaw timis ñaar ñeent ba juróom benn ak ñeent bala nga julli gee ak gee ci boppam moom waxale wuñ ko moom tudd farata ci waaye ci ruuj la nekk balaa mbay agsi mbay mi moom la tudde jaamu yàlla gu mag gi soo jullee gee ba noppi nga def fukki rakka ak ñaar def benn muy witr bu yoor yooree balaa yoor yoor fajar xar bala nga julli suba nga julli ñaari rakkaay fajar julli fajar ci boppam nekkaat ci lu baax ba jot liggéey jot nga dem liggéey fu yor yor jote yor yor yomb naa xam diggante huit heures ba onze heures nga def li ko tàmbalee ñaar ba juróom benn ba juróom ñett sittan aw isnatayni an xayri nabi waxta duha stahaba ni ko Sëñ Tuubaa jàngale ci Masaalikul Jinaan kon loolu la tuddee ruuj bala ngaa julli kon ñi nga xam ne dañuy wut ngërëmul yàlla te ku am ngërëmul yàlla am na li gën ci àdduna te jaar na yoonu am la gën ca àllaaxira nee na ko da ngay ruuj bala ngaa bay gannaaw boo tegee yàlla fañ ko war a teg bala ngaa ji fu nekk ruujal ba mu set mooy jaamu yàlla gu nekk ne ko jaamu yàlla gu mel ni moom jiitu nga def farata ja tof salaat ko ca loolu nag bokk yi ku ci sax bu ko bàyyiwut du am jot ak dugg ci leneen wala di déglu leneen waaye nee na ko nit koy tukki na nga wutub yóbbal digal naa la ko ak képp koo xam ne wax bi àgg na ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon ca ajam ga ne ndax la yàlla waxoon ne naa leen ko wax wax naa leen ko waaw wala déet ñu ne ah kay wàññi naa ca déedéet danga caa yem ba gën koo leeral ndax dolli naa ca dolli woo ca lenn lu dul da nga ne lii dama yàlla waxoon wax nga ñu ko gëm nañ ko danañ ko def mu ne kon ku fi jógee ne ko jottali ku ci ku fekkee wutoon ne ko yóbbal bi jëm ci tukki bi nag bu ñu defee ne jëm fii la wala faa déedéet yóbbal bi mooy daf ko ne su fekkee amoo ngàntul di jàpp jàppee bul boole yaari waxtu mu ko di ko julli ci menn jàpp waxtu wu ne jàppal ko ndax bu la ay kilifa woowoon kii woola tey kii woola suba kii woola ngoon ki la woo suba moom da nga waaj ak mbubbam bëgg soo demee kenn du la fa daan bu dee ngoon it da nga sol meneen mbubb moo xam ne doo bëgg ku la fa daan waaye booy xëy it waxaale wuñ ko mi nga yendoo doo ko solaat nee na ko jëm ci jaamu yàlla gën a ñor fopp kon lim tuddee ab tukki mooy jëm ci jaamu yàlla gi ba tey waaj bi ab baykat di waajal ay toolam ab tukki di ko waajal tukkeem moom tukki bi ni mu ko tekkee mooy balaa waxtu wi agsi na nga jàpp toog di xaar bu fekkee amoo ngantul laal ndox te bul sàggan mukk bul sàggane dara bul bàyyi dara lu dem te nga mën caa amee lu baax bul xóot ci waxtaan woo xam ne adduna kese kese la te fekk ñi nga waaj a wa julli tisbaar wala waaj julli takkusaan wala waaj a julli waxtu sàngam waxtu sàngam moom na nga ko waajale am njàpp te bañ fa dugal jenn wax di dul waxe waxtu wi kese daal na ko na nga fexe ba bañ a ñaawal sa digganteeg sa borom mu mel dañ koo laaj loolu lu muy amee mu ne ko na nga xam ne sa borom kat moo la bind te ba mu lay laata bind am na ñu la fi jiite woon am na ñu la fiy mujj li gën a ñaaw ci yi ñaaw diggante nit ak boroomam nag mooy waxtu julli jot sakkantuma ñu nodd ba noppi diggante noddu ga ak julli ga ñu di fa xuus di wax lu bokkut ak lu jëm ci lu baax kese kese kese nee na ku ko def ñaaw ñaawal na digganteem ak boroomam ba noppi yàlla nu ci yàlla musal ne ku ko bàyyiwul mi ngi dox jëm ci luy ñaawal luy gàkkal digganteem diggante bi war a am diggante nit ak nit bu doon diggante war a tax mii gën a ñagasal digganteem ak borom yàlla nu ci yàlla musal dal ko ne nag bi ma jëkk a wax mooy bala ngaa ru bàyyi na nga ruuj ba noppi ruuj ba noppi bayoo it jiwoo bayoo it yàq la dégg loolu rek mu yomb ndax am na ci bokk yi bokk yi am na ci ñoo xam ne mën nañoo teg seen bopp coonob jaamu yàlla gu nekk ba mu des yàlla santaane coono bu ne mën nañ ko teg seen bopp tuddi ko jaamu yàlla ba mu des yàlla santaane moo tax mu ne ruuj ba noppi te mu tooy jiwoo bayoo nag perte mënu koo weesu ak yàq la dan ne yàq nag lu mat a moytul ndax yàlla bëggul ko yàq te yàqkat yi ci daayira seytaan lañ bokk ay mbokkam lañ waxuñu bokk ci daayira ba kese waaye ay mbokkam lañ bokk kon bokk buñ xamee ne yàlla sañ a digle teg ca yar ca wet ga ku ko defut yar ba yar ba dal ko am na ñeneen ñu ko sañ am na ñu ko sañ waaye wuuteeg suñu borom gi ak mbindeef mi dafay feeñaat ndax yàlla moom bu diglee rek teg nag pay ba noppi wuute gay wéy ki lay dig ki la digal teg ca yar mën na laa wax lu ne ba mu des maa la bind loolu moom kenn ñemewu ko wax kenn ku ko wax xel yi bu ñemewu tontu it xel yay jëkk bañ ci nga xam ne daa dane ku ma joxut nga lekk doo lekk ree war na ko jàpp ndax moom day dem këram ne soxna sa ndax añ bi noppi na kon moom bu ñu ko joxut du lekk léeg-léeg li mën a may ma ndox kon nag kum ne su ma la joxul ndox doo naan war naa seet boppam kum ne bu bu bu ma la fajut doo wérit loolu it kooku war naa seet boppam ndax moom mu di faje moom moomu di faje nee na léeg-léeg mu dem ci keneen ne ko xoolal ma sama yaram bi ba xam léeg-léeg sax nga dégg mu ne léeg-léeg ñu ne ko yow ngay faje ba noppi dem di faje ji mu ne daa am koo xam ne loolu mooy taxasusam taxasus mooy spécialité am spécialité bu mag bi nag spécialiste bu mag bi nag mooy yàlla nga xam ne ku ne lam nekk spécialité spécialité am lam ca xam ku si ñëw ba nit ñi jox ko sant woowa la ca des dana gàññ yàllaa ko téye sëñ Mansour si ba fa ministre de l'intérieur demee ku mën a gëstu jàmbare lool di wax ci gàmm gi ay ndaje mi di ko laayal ay ay ayaat quraan ak ay ahadis nabawiyya ak i abyaat suñ moom su dafa jàmbaar nga lool de waaye nag na nga xam ne ci daara ji nga ñëw ci daara ji nga agsi ci nga ñëw ci daara ji nga ñëw ne ko dafa am ku doon bëre jafe daan lool dem ci kum yaakaar ne ko ñaanal kenn bañ maa daan mu ne ko boo léewtootee rek neel daddi daddi daal guñ maar ci kaw ak suuf rek loo bëgg ci kooku da nga ko def mu di ko def ba daan ñëpp ñëw ne ko yaa ma dese yaa ma dese ji nag bokk yi dama koy dendale ku dëkk yàlla moom mi xam lépp mu ne ko tey nga ma fe bàyyi mu ne ko su ma la daanut du ma daan ñëpp ndax yow ci ñëpp ngay bokk mu ne ko ay ca ba ma jéem ñot ñoti jóg taxaw kooko léwtoo na daal di góor ga ne ko daal di daa jàpp teg suuf ndànk mu ne ko lii waxuma ko woon mu ne ko lu bare ci des loo xam ne waxuma ko fawqa kulli si ilmin alim kon ku téye ci yàlla mooy ko du jaaxle ci dara kenn mënu koo daan moom rek moom watawul ngërëmam ndax nee na ku génn àdduna fekk mi ngi doon wut ngërëmul yàlla di ko jaare ci gëm ko di jëfe ay ndigalam di bàyyi ay tereem kooku bu ñuy seet ki gën ci nit ñi moo ci gën te jëfe gëm doon jëfe ndigalul yàlla yàlla am na lu mu ko fayee ma nga ma teg ca pegg ba pay ga nag su ko yàlla tegalee ci loxoom yàlla jërëjëf yàlla ne ko jërëjëf dong moo cay tege inna alladina amanu wa amilu salihati ulaika hum xayrul bariya jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min taxtiha al anhaaru xaalidina fiha abadan radia allahu anhum wa radu anhu dalika liman xashiya rabba yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallama bu fi nit bàyyi kootee nañ teey ci radiallahu anhu jiñ ki jiñ koy tegal nañ xool lu mu fi nekk woon ñu ne ko yaa ñu koy jàngal mu ne man faraqa dunya ala al ixlaasi lillahi waxdahu la sharika lah wa aqama alsalata wa aata alzakata faraqaha wallahu anhu raadin koo xam ne bi mu fi nekkee ak gëm yàllaam nit ñi xamoon nañ ko yàlla xam na ko nit ñi xam ko na ko nit ñi xame mooy daa teg tànkam fu yàlla teglu sax ca tudd na julleeg natt azaka waaye yóbbal nañ seen bokk yëpp ak seenum ruuj nee na kooku day suñ ko ne radiallahu anhu gannaaw bu mu faatoo su ko ko nit ñi waxalee am na ko su ko nit ñi waxalut am na ko yàlla na nu yàlla defar ridwaanullah kon ñu gën a dëgëraatal pas-pas yi xam ne li yàlla yor rek moo du jeex maa indakum yanfadu wa maa inda allahi baaqin lu nit mën a yor loo ko ragal-ragal loo ca bëgg-bëgg loo ko naw-naw yàlla neen dana xëy bis ñàkk lépp benn loolu dem ba ci ko fa wala mu dem ba ci fa loola waaye la fa yàlla moom la fa yàlla su boobaa it moo fay des kon kum fu fekk da nga noppalu noppal ñi nga xam ne ñoom nga ko siqal ñépp ngeen gërëmante yàlla na yàlla dimbale ban am ngërëmam yàlla na yàlla dimbale bañ di ko gën a gëm di ko gën a wóolu di ko gën a yaakaar di ko gën a doyloo fi may jeexale mooy bi ci gën a am solo mooy yooyu ma wax noonu gëm ko wóolu ko yaakaar ko doyloo ko ragal ko yent yooyu jàpp ma lim bi mu toll mën naa ban ñeent mën na ko ëpp waaye bu ci nekk ay mandarga rek lay doon ci nit ki lee mu ñàkk ko ni mu ko junjee loolu lay dem wàcc ko wala loolu mu moom ci bopp mu dem wàcc fala keneen joraat ko kon boobu nañu doon lee gëm yàlla te yaakaar yàlla te wóolu yàlla te doyloo ko te ragal ko ragal gi moom moo laa doon waxtaane léegi moom laa doon junj léegi mooy ñu fas yéene fu ñu teg suñu tànk muy fa yàlla teglu fu ñu koy teg it mooy fam ne bu mu fa teg bu mu fa tege te bu ñu ko fa tegee yàlla bu ñu yàlla yàlla ñu yàlla dimbal bañ dañ ko fa tegati yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin